ñu partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew tey pour signer convention ak Sénégal numérique ci wàllu déploiement wu ay services ci li nga xam ne donc euh, dañu ko lancé muy le gouvernement sénégalais euh, muy la plateforme donc Sénégal service donc Sénégal service nag li ko tax a jóg mooy permettre sénégalais yi. bépp service boo xam ne état daf koy joxe wala collectivité territoriale wala sax un acteur privé ñu mën ko jox sénégalais bi ci benn bërëb wala ci benn plateforme donc plateforme boobu nag mu ngi tudd Sénégal service wala ci département wu Sénégal yi da tabax nañu foofu donc ay espace Sénégal service donc tey signé nañu ay convention avec les mairies de Dakar donc loolu dina tax bépp service boo xamante ne communes yi dañu koy joxe donc ci seen i euh, ci seen i espace communal ñu mun ko joxe désormais dans les quarante cinq départements du du Sénégal mais également mun ko joxe ci internet bi donc ci plateforme boobu ñuy woowee donc Sénégal service donc point sn wala boo demee ci euh, wàllu mobile bi nga mun ko télécharger ci Apple Store wala Android donc télécharger donc l' application Sénégal Sénégal service. waaye Sénégal service jagleeluñ ko rek donc service yi nga xamante ne état bi wala collectivité territoriale yi ñoom ñoo koy jox suñu mbëbët mooy vraiment bépp service boo xam ne sénégalais bi soxla na ko ñu mun ko am ci ci plateforme bi moo tax tey signé nañu ak am euh, AMSA assurance bi nga xam ne euh, désormais euh, ay service am dinañu ko mën a am ci quarante cinq département wu Sénégal yëpp donc loolu dañ ci profito pour mën a lancer un appel au secteur privé national comme international pour vraiment guichet unique bi ñu bëgg au niveau du Sénégal vraiment ñu mën a am le maximum de services pour les Sénégalais pour mën leen a yombal donc accès ci ci services yooyu. alors ñu ngi am 45 euh, espaces Sénégal service yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci capitale départementale yi nekk ci biir Sénégal et puis di lancer un appel à tout le secteur public mais également le secteur privé.